daani sama waay da jàmm ñal jaara busuk wala man se bi jaara jàmm ci seen boutique bii di American Shop boutique bi ngeen doon xaar yegg si na ñu ngi fii ci Parcelles Assainies unité 22 ci wetu marché police bi janoog seen karo kër xaadim boutique bi nag li ko tax a mooy gunge sénégalais yi ci ay produits de qualité 100 pour boo duggee lépp li nga xamante ni da nga ko soxla sa biir kër da nga ko fi am muy ay matériel électroménager am nañ ay frigo yu mag marque side by side ay Samsung ay LG attention frigo yi dañu ko garanti téléviseur de haute gamme dimension boo bëgg am na fi image yu leer man yii xeetu image man musuma koo gis muy 40 pouces 48 50 65 75 ba ci 85 suñu numéro téléphone mooy 77 921 59 92 American Shop suñu spécialité ba tax ñu ñëw fii ci Ndakaaru mooy gunge ñiy yëngu ci wàllu hôtellerie équipé leen ba mu baax muy chambre à coucher ay matelas orthopédique yu baax original jóge fële ci Amérique am nañ ay lampe abat-jour yu koy accompagner yow xoolal yi xeetu lal suñuy xeetu canapé suñuy xeetu meuble yow daw sil gaaw ah yéen ñi dëkk Mbour am nañu showroom fii ci croisement Saly ñun American Shop dañuy gunge ñi nga xamante ni dañuy yëngu ci wàllu hôtellerie bàyyiwuñu appartement meublé yi yow sa appartement da nga ko defar ba mu baax waaye am na lu manqué li mu manqué ñun ñoo ko yor di ay xeetu meuble yu baax ay ak à coucher benn détail duñu ko bàyyi ba ci serviette yi nga xamante ni sa gan yi bu ñuy ñëwee ah, matériel moo mujjee xew ci àddina bi jógee fële ci Amérique am nañ ay chaise roulante muy suñu papa yi ba suñu maam yi suñu chaise roulante yi dafa baax lool ñi nga xamante lu ñu am ay jafe tànk mën nañ ci toog am nañ ay béke yu dëgër yomba doxee am nañ ay piliyaan suñu piliyaan yow xoolal bu la neexee da koy lem def ko chaise bu la neexee ubbi ko ba mu baax def ko lal ñun American Shop dañu soraale suñu rakk yi suñu doom yi waaw six ans ba dix ans andil nañ leen ay dàll yu rafet couleur yu baax baax ci bii ñu nekk ah darab yaa ngi fi coton cent pour cent waxoon naa la ko sànq waaw waaye foog ma leeral ko am nañ ay mbàjj ay ensemble ah yi xeetu coton suñu parfom yi nag dafa léger ndax ci tàngaay la ñu nekk waaw parfum yi daf lay jox xet bu neex góor jigéen ah suñu frigo baar yi dafa baax ci tàngaay bi waaw boo koy utiliser du la tardeel benn yoon da ngay teg même pas vingt minutes mu jox la ndox bu sedd American soap waxoon naa la sànq ne boo jékkoo nga baale a mën kuy saaga. mbokk yi maa ngi ziar ñëpp di gërëm ñëpp di wax yàlla na ñëpp am jàmm ci barke Serigne Saliou man Idali ma Serigne Saliou euh, macha allah maa ngi leen di ziar baax a baax lépp lépp loo xam ne rek actualité Sénégal rek incha allah dinaa ci wax euh, def ci njàngat bu baax a baax andiwaat euh, tey adduna ñi nga xam ne comprendre wala ñi nga xam ne tey dañoo réer mbir tey mu andiwaat leen bu baax a baax a baax di jéglu baax waaye nag tey damay dem ci kenn koo xam ne ci ginnaaw ça fait deux mois trois mois amoon na fi ay coow amoon na fi ay jafe li nga xam ne moo di wàllum ojo euh, muy ki nga xam ne moo di euh, Kouthia Kouthia ku nekk xam na ko muy doon liggéeyee euh, benn groupe média macha allah yàgg fa trop nag waaye mosuma cee wax mosuma ci génn def ay révélation waaye dama gis lu yaram dama dégg lu yaram ci moom muy Kouthia muy loo xam ne képp koo xam ne nit dëgg nga képp koo xam ne julit nga képp koo xam ne dëgg rek moo la ñor waaye képp koo xam ne am nga yërmande képp koo xam ne jullit akkan nga boo ko dégloo seeram day daw muy Kouthia amoon na fi problème fi mu doon liggéeyee muy groupe Futurs Médias du ma ne sax am na fa problème mais am na fa problème yoo xam ne dañ ko euh, dafa daloon ci kawam muy corole problème audio yu tas man audio yi sama yoon nekku ci xaw ma ci dara sama yoon nekku ci mais juste rek musuma ci wax mais dama gis mu def benn euh, euh, vidéo vraiment te ma vidéo bi dafa maa frappé te képp koo xam ne jurit nga vidéo bi da la frappé muy Kouthia barki Serigne Saliou fàtte woon naa ko sax parce que problème bi yàgg na mais dama déglu benn vidéo am vraiment man dama choqué te képp koo xam ne nit ku baax nga nit ku baax ku julite koo xam ne boroom yërmande nga koo xam ne xol bi sa xol yàlla moo ci nekk ak Seydina Mohamed vidéo da lay metti muy vidéo Kouthia mu wax ci loo xam ne vraiment dafa daw yaram te kuy nit dëgg boo déggee lii xam ne lii mu wax dëgg la nag ci organe de presse dix neuf ans du dix jours du dix neuf jours vraiment muy lu yàgg tey dix neuf ans tey xale bu ci juddi woon tey takk nga jabar bu dee góor nga wala bu dee jigéen nga am nga jëkkër wala macha allah tey yaa ngi am lu nekk muy loo xam ne du tey du démb waaye nag mu def lu garaaw wax lu garaaw ci vidéo bi te loo xam ne kuy nu dëgg xam ne lii dëgg la 19 ans nga def ko ci organe de presse daj fa lu ne xaar fa lu nekk tey dégg fa lu nekk tey benn problème ak kenn koo xam ne danga ko na problème muy wàllum ojo tax ñu dàq la sa liggéey te liggéey bi ak audio bi du benn ka nga joteel kanga joteel la mais liggéey bi liggéey bi la nga def fa 19 ans de service daj fa lu ne xaar fa lu nekk ba muy metti te mu wax lu garaaw bi ma fay dem boobu rajo la woon boobu télé amu fa ma bàyyi tele bàyyi rajo dem foofu Kouthia loolu mu wax man teg naa sama bët bi mu yenu plateau bi di daw ci rond bi almadi mbokk yëpp a teg seen loxo bi mu peintre yaramam bi nga xam ne li mu wax comme mën na ci am cancer adduna yëpp a teg seen bët ngir bëgg jaay li nga xam ne mooy image télé boobu ngir bëgg yëkkati nga xam ne mooy image télé boobu nit ku am ngëm-ngëm noonu lay def nit ku am dëggu noonu lay def boo nekkee fen danga nga fay joxe ba mu jeex takk te Kouthia ko xam-xam ne ba mu nekkee fi nga xam ne mooy organe boobu dafa joxe lépp ba mu jeex takk di dawat yaram mu waxaat ne encore déglu leen vidéo bi dafa daw yaram mu ne dama doon def loo xam ne yàlla gërëmu ko yeneen bi gërëmu ko dama doon sol yëru jigéen di jigéen jigéen lu ngir lan ngir doxal li nga xam ne moo di mission bi ma nekkoon ci télé bi muy daw yaram sëñ bi ku dégg lii xam ne li mu wax dëgg la waaye tey ngir rek feeñal loolu tey tey ma jote ak nit ci télé boobu ma nekkoon ci wàllum audio ñu dàq ma sans droit samay service dàq ma sama service ma def fa 19 ans yor ma fay samay droit fay ñu ma ko ma bàyyi lépp bàyyi lépp ak yàlla mais Kouthia yaa gore barke alxuraani karim yaa gore man dama koy wax yaa gore Sénégal déglu leen nañu am xolu yërmande te di jëggalante di jëllale nit mënul ñàkk a juum waaye boo juumee itam ak sa côté liggéey du benn du wax lu daw mu wax benn way ne di liggéey loo nit ba xëy na la dàq naa la lii dafa ñaaw am na woykat bu ko woyoon may ma mu am na woykat bu ko may woyoon mu tey mooy li ñu ko def dàq ko sans droit dix-neuf ans de service nga daj fa lu nekk fekk fa rajo ba télé ñëw ñëpp sol su rafet ñëpp di sànce ngay sole yëre jigéen pour lan di jigéen jigéen lu pour li nga xam ne yóbbu li nga xam ne mooy seen liggéey ca kaw waaye tam li nga xam ne moo di seen euh, drapeau nga yenu ko ci mbedd mi def yaramu neen peinture bind ci turu télé bi di daw ci mbedd mi ñëpp toog sañse ngay daw loolu mooy gëm-gëm loolu mooy joxe ba jeex Kouthia barke maam Cheikh Fall gor nga Kouthia barke Serigne Saliou gor nga audio bu ne am na fi njuum de bu ne am na fi mais nit ki du juum tax nga yàq addunaam mënuñ yàq sa adduna nag jéem a yàq addunaam sax laay wax parce que nit koo defal 19 ans de service nga xëy benn jour mu def erreur nga dàq ko dama koy wax toujours ci samay émission may leen nit tey nag ni ma waxee xam naa bon di ngeen ne idéal dafa tàng waaye tey dama am dama lu metti du du ko soxla Kouthia wala keneen mais ci Kouthia la dal ñun sénégalais yi dañu war a am yërmande njëggalante Kouthia ngi nii euh, doy na waar yan situation la nekk yàlla rek ko xam yor ay njaboot yor ay xale yu ndaw nekk mag dem bay fee carrière dix-neuf ans boo ko def service yaa ngi fee carrière nañ la fay lu rafet mais juumte ci audio ci keneen ak keneen wax dëgg yàlla ak sa liggéey du benn nañ la bàyyi sa liggéey nga kon ne te nga liggéey te nga régler li nga xam ne moo ngay liggéey ak keneen ki nga xam ne moom amoo problème mais vraiment Kouthia ko def métti na di wax sénégalais nag billaahi wallaahi képp koo xam ne waxuma ko de Kouthia jiguma ko woolu ko mais xam naa situation yi mu nekk képp koo xam ne sénégalais nga képp koo xam ne doo sénégalais sax sa xol yërmande daw ci yow damaa bëgg nga jàppale Kouthia njum te day am ñu ko ne jum te nit ku nekk wax nga sa jabar loo xam ne su génn tey àdduna tukki kenn ku nekk wax nga ak sa jabar ci àdduna mooy téléphone la wala ci biir néeg su génnoon tey àdduna tukki muy kilifa geeg keneen ak keneen kon vraiment nañu xoolaat Sénégal nañu xoolaat li nga xam ne mooy organe de presse yi ñu ngi toroxal nit ñi organe de presse yi man ci laa bokk fi laa bokk moo tax presse bi laa bokk mais li ñuy def ñaaw na dañuy utiliser utiliser ñu ba soxlaatuñu ñu sànn vraiment war nañ xool suñu bokk organe de presse Sénégal vraiment li ñuy def baaxul tey nag li tax ma ko dama déglu euh, li nga xam ne moo di euh, émission Kouthia mu metti ma trop barke Serigne Thiaw mu metti ma trop boo dégloo li mu wax yaram moom dafa daw nee na bu ma neexoon yóbbu leen xoolal lii rek ndeysaan déglu lii oh dafa garaaw su ma neexoon tey ma porte leen plainte parce que dañ ma dàq sans droit mais bàyyi naa lépp ak yàlla dafa dafa daw yaram. te ba mu génnee ba léegi ku caa leen mu wax ci benn télé ŋàññi kenn wala mu yalwaan fenn ne dimbal leen ma Kouthia yaa gore waaye sénégalais yi sénégalais yi sénégalais dama bëgg déglu li mu jóge wal fajari bàyyi fa rajo ak télé dem fekki rajo kese bu RFM ndeysaan toog fa ba télé ñëw mu dugg Sénégal jaay ko. ndeysaan àddina bi. wallaahi carte yi France États-Unis fu ne ma dugg fa jaay fa carte yi. dëgg ans ma nekkal leen ko. oh di sol yëre jigéen jigéen jigéenu loo xam ne sama diine ko. allahu akbar pour jaay image yu groupe boobu. ndeysaan. 19 ans de service ñu dàq ma dàq ma toroxal ma. oh loolu torox loolu laa ko mën a tuddee. allahu akbar après 19 ans de service. man mérite naa waroon leneen tey. laahi ay internet tey ñoo dugg di wax pour jéem a jàppale Kouthia pour mu am ci lu mu nekk. laahi ndeysaan man mérite ma ku ñu war a dàq man. déedéet. parce que nit ki bu fekkee protéger deux personnes war a protéger trois autant nga sacrifier Kouthia loolu du yoon. ndeysaan. protéger trois animateurs war a protéger quelqu'un war a protéger quelqu'un tax nga tax. ndeysaan. ñoo ko déggandoo oh, muy lu garaaw dégg nga li mu wax du ma ci jaaraat vraiment Sénégal nañu xool ñun ban ban genre la tey Kouthia mii képp kuy def social képp koo xam ne nit ku baax nga di jàppale doomu aadama barke alxuraani karim maa ngi lay ñaan nga barke Seydina xam nga jàppale Kouthia Show parce que kat mu ngi ci fin de carrière moom dégg nga ko de dëwul yalwaan demul pour dim kenn dimbale ko mais non dafa am lu ko metti parce que commentaire yi moo tax mu wax ñoo mais commentaire yi la doon wax moo tax mu wax parce que nag lu ëpp tuuru nit ku nekk nit nga xol amul yàq yàpp ak dara lu jëm day naaj mais may wax sénégalais ne tey laa mos waxee ni tey tey laa mos a ci nit mais ku caaso barke alxuraan karim boîte bi mu nekkoon barke seexul xat daj na fa lu nekk liggéey te yàlla tax di fa suturloo ak ay njabootam waaye tey méritowul mu def erreur ñu daq ko li may wax toujours nit ki mënoo nekk ak moom 30 ans 10 ans muy neex nga naan ko yaa baax. benn jour mu fakkastalu def heure nga ne ko da ngaa bon Sénégal nañu bàyyi xel li ñuy def man nag maay laa sa message képp koo xam ne yaa ngi ci àdduna bi di def lu baax waxuma Sénégal de nga jàppale Kouthia ci barke alxuraan karim parce que yor na kër borom kër la di fay location di fay lépp tey te tey gis nga ñu dàq ko sans droit fan la jëm nan la yore njabootam lan la xam Kouthia affaire télévision la xam lu mu xam Kouthia du jaay Dakar du jaay Dém du jaay. du chauffeur ah du euh, du restauration lan la xam télévision la xam bu ñu ko fa dàqee lan lay def te mag la Sénégal maa ngi lancé message ci kilifa diine lay njëkkee barki Serigne Saliou ci kilifa diine lay njëkkee ki nga xam ne mooy borom yërmande moo fi Serigne Touba tey mu sëriñ Serigne Mountakha basiro laay njëkk woo di woo képp koo xam ne julit nga di jàppale nit bu dul julit sax di jàppale nit te yàlla tax. maa ngi lay woo tey damaa wax ba ñàkk barke Seexul dama sama yaram dafa daw démb damaa jooy ci guddi parce que koo dégloo li Kouthia wax nga xam ne kii vraiment li mu wax waxu gor dëgg la kon Sénégal maa ngi lancé ñëpp message am na ñoo xam ne sama nit la nag dama leen di lancé message ku ci mel ni Malick Naar Malick Naar l'ami de Wally Ballago Seck New York social lekk moo la ñor maa ngi ñaan ci barke alxuraani karim nga def sa loxo keneen ak keneen lii nag parce que waxloo ma ko dégguma ko mais man maa sentir wax loolu parce que Kouthia kat réew mi la bokk te même bu dee benn bës reetaan na ku nekk Kouthia Show ñëpp ko reetaan ku feebaroon sax da ngay jàpp Kouthia Show pour sa sa sa dañ kon Sénégal Kouthia Seck Kouthia Show kenn ku nekk même bu dee benn seconde reetaan na même bu dee benn seconde de dëñ sa li nga xam ne mooy sa stress ñun nag dëkk réewum teraanga lañ nekk réewum jullit lañ nekk yàlla dafa wax ne yonent bi wax ko alxuraani karim wax ko ay jullit lañ bu ñu amee problème nañu dem dis ko suñu moroomu jullit yàllaa ko wax ci alxuraana te dana wax encore boo amee dimbaleel ki nga tane sa moroomu jullit am na droit wax la soxlaam nga faj ko ko yàllaa ko wax da ngay neex na nga faj ko mais maa ngi lancer message képp kuy jullit képp ku nekk ci biir réew mi képp ku dul jullit sax laay wax képp kuy def lu baax ci réew mi barke alxuraani karim nga jàppale Kouthia Show parce que xam naa ne du wax mais metti na ci moom maa ngi jë maa ngi ñaan ñëpp di lancer message kilifa diine yëpp kilifa diine yëpp ak kilifa aada yi képp ku ci mën a jàpp nga jàppale ko parce que dafay yor location yor location këram yor ay njabootam te instant nii euh, amul benn salaire boo xam ne moom lay jàpp man maa ko di déglu audio déglu vidéo ma xam ne kii kat mooy loolu ma jël génn def sorti ci moom tey vraiment gars yi gars yi Sénégal nañu dellu bu baax suñu xol ci yàlla nañu dellu suñu xol ci yàlla ëllëg kat lu mot a suuraale la te àdduna dafa jeex ba pare def lu baax rek ay baax barke alxuraani karim fi mu taxaa basir wax na ko de nee na baax sonn bon sonn kon nañ baax mais Sénégal dañu dalu suñu xel yi yàqante bi waxante lu bon li ak li nga xam ne tey moo di eh, lekk àqu jàmbur yàqante lu bon yëpp garaawul dafiy jeex mais lekk àq lekk ñaq xool sama ñaq bi xam nga maa ngi nii ñaq ba sonn man ma ñaqal sama bopp doon kenn la ko ñaqal te fayu ma ko mu dem toroxal ma après tey kon tey du ko jëg sama gars yi bàyyi leen xel maa ngi lance message képp kuy jullit na ko jàppale man nag marginal social aperçant lay def borom New York la mi de Wally Ballago sekk maa ngi la ñaan nga def sa loxo maa nga du Conte boroom Gambia maa ngi la ñaan nga def sa loxo même ba ci Wally Ballago sekk sax sama xarit sama président sama woykat bëgg naa nga gestu nga xam ne mooy Kouthia Show parce que kat man toog nañ yàgg na may wax relation ak sa papa mooy papa Thione ba ñoo bokk benn jour anniversaire barki Serigne Saliou kon Wally Ballago Seck sax ma lay lancer message man ak sama sobaay ak sama lépp nga geesu ki nga xam ne mooy Kouthia Show jàppale ko te yàlla tax ñeneen ñëpp ñu jàppale ko ma ciy woo encore ki xam ne suma xarit la Serigne Abdoulaye Diop benn Serigne laa am boo xam ne sama xarit la su ma jaaxlee moom laay woo su ma ñàkkee xaalis moom laay woo moo mën a taxaw ci àdduna ne yi lekk na sama xaalis muy Serigne Abdoulaye Diop xaas Serigne Sumbulu moo ko mën a wax ci àdduna beneen Serigne bu ko wax waxoo dëgg beneen sëriñ bu taxaw ne waxoo lekk na sama xaalis bu dul ci ci bu dul ci nga liggéeyal ma ma liggéeyal nga fay ma am waxul am xaas laay ñaan am problème ñoo ko xas dama problème bi mu faj ko léeg-léeg mu ne ma baal ba jour tel mais à part amul benn sëriñ bu taxaw ci kaw suuf mun naa lekk xaalisam amul déedéet déedéet à part sama xarit nekk États-Unis man tamit ñoom dama seq ñoom loolu kon Abdoulaye Diop Khass maa lay woo nga jàppale Kouthia te yàlla tax parce que ay jullit lañ moom nag li may def yëgu ko de mais dama xam li muy dund parce que Seexul Xadiim dama déglu vidéo am rek man nit laa damay xam kon Sénégal di woo ñëpp ma kenn képp ku ci mën a def sa loxo ci barke Seydina Muhammad ci barke leeru alxuraan ci barke leeru alxuraan ci barke Seydina Muhammad nga def ko te yàlla tax jàppale Kouthia parce que dafa nekk service dix-neuf ans di boppam ñu koy fay salaire boo xam ne mooy loolu ñu koy dàq ko sans droit lay jàpp ak lan lay jàpp nañ xool lu mu lii mooy Sénégal képp ku problème ñu jàppale ko man mi yee naa jàppal jàppale mais maa ngi ci jàmm macha allah keneen ak keneen ak keneen kon Sénégal bu ma nekkoon situation yi ku caa nekk dañ koy jàppale man dinaa ci jàpp lépp lu ma mën incha allah ci kattan yàlla parce que nit ku baax la nit ki mënul chaque jour muy reetaanloo ay nit benn problème am ñu dàq ko sans droit li mu jote ak ñee ak liggéeyam du benn te dafa wax wax ñu daw yaram barke alxuraan karim 19 ans mu bàyyi léppam soo yore jigéen di jigéen jigéen dafa daw yar kenn nangu koon moom nangu ko sax nangu koon kenn nangu ko mais dafa daw yaram kon di la wax ne Sénégal na ngeen bàyyi xel bu baax a baax organe de presse yi organe de presse yi muy bu mag muy bu ndaw nañu bàyyi ndaw ñi ñuy utiliser nañu bàyyi nit ñi ñuy utiliser bu ñeen soxlaa bu ñeen buggee dàq dàq leen sans droit dafa garaaw ñàkk nag dafa garaaw ñàkk dafa garaaw de barke Serigne Saliou jërë ngeen jëf lii laay tàggoo ba beneen yoon. Kouthia après dix ans de service yoo xam ban faute laa def ban faute laa def pour waa man groupe Futurs Médias di ma dàq man di ma toroxal waaye ma wan leen ne du ma dem fekk beneen chaîne bu mag pour defante ak ñoom damay dem ramper. moo ko ci chaîne bu ndaw pour yéeg relever loolu wan leen ne man du ma taxaw sama loxo di yalwaat. waaw je pense que ne. dégg nga li mu wax du ma taxaw sama loxo di yalwaat Kouthia ba mu bàyyi ba léegi kan la ma sa taxaw ne ko damaa soxla lii lii may wax maa ko def sama paaru bopp barki alxuraani karim sénégalais yu bëri nañu gis sama toog rek ñu naan Kouthia lu tax dañ maa dàq dañ maa licencié pour faute lourde su ma neexoon dama leen di yóbbu ci yoon. Hmm. mais dama bàyyi lépp ci loxo yàlla. waaw ay nga ku a bàyyi kenn ku nekk di def témoignage ñoo touché sama xol me dama waxoon lii ma ci wax de mais il faut que mu dire la vérité parce que il temps de dire la vérité. Hmm. les gens m'interpellent partout ma mëntu laay may mu ñëw. Hmm. les gens m'interpellent partout Kouthia kañ ngay commencé ku nam ma nañ la. ndeysaan. xaar leen ma fii. parce que dañ ma humilier oh dañ maa dàq licenciement pour faute lourde pour lan pour lan pour lan mu nu mel ne enseignant bu dem jàngale wàcc ñëw directeur na ko dàq naa la parce que da nga xulóog sa mais lan lan mooy cause bi lan laa def bañ may dàq mise à pied sa dafa fort si loolu mais waruñu ma dàq man TFM fi ma jaar ak ñoom après dix-neuf de service oh. ndax ba ma leen di bàyyi dama bàyyi groupe bu am doole ci Walfadjri bàyyi leen rajo ak tele dem fekk rajo kese. nekk ak ñoom di rampe di xeex ci bataay bi ci pétition bi bañ yàlla may ma jël drapeau bi daw moom ba TFM. dëgg la moom ci àdduna jaay ko àdduna bi yëpp jël yaram bii di ko peinture di ci daj ay lu am ay problème cancer de peau lu ne mën a ma ci fekk ma jigéen jigéen lu sama diina nangul ma koy def rien que pour xëccoo dumaa bi tey waroon nañ ma sargal man waaye waru ma mérite woon ñu may dàq ci biti. allah akbar. Sénégalais yi bàyyi leen xel àdduna bàyyi leen xel yi ko caa wax Serigne Saliou xam ne loolu wallahi azim li mu wax nii képp kuy dëggu képp kuy jurit képp ku am xol bu tooy war nga xam ne li wax dëgg la waruñu ko fay lii mérito wul lii ñu dem. xaar ci beneen chaîne pour may defante ak ñoom doo fa gis lu ndaw lii laay jël di ci rampe di ci rampe di ci rampe loolu nag ñoom. bii li mu wax nga di ma liggéeyloo ba xëy na ma dàq naa la way bi tey man la dal man lañu liggéeyloo ba xëy na ma dàq lañ la yoruma jaasi menacé wu ma journaliste taaluma fa loo xam ne dafa egg cinquante millions menacé wu ma fa nit ay kaddu yu ñu te kàddu yu ba tey amuñu ay preuve ndax ci man la jógee ñu dem dàq ma pour protéger ñett wala ñeent nit yoo xam ne. Ndeysaan wax lu doon yaram Ndeysaan menacé wul nit yorul jaasi yàqu fa loo xam ne. valeur lu cinquante million la tax ñu dax ko ndax lan audio yoo xam ne dañ ko tas ne moom moo ko wax te moom taxawul ba léegi avoué ne moom la taa wax na dëgg ñu dem. bu ko caa dellu si fii ñoom ñu bàyyi pour quelle raison pour quelle raison menace téléphonique il était pas resté chez moi pour bañ a dem liggéeyi dañ maa tàq tàq la veille de la tabaski mu def trois jours ma war a fayee ko. ñu dàq ma sans droit droit sans droit je dis pour préciser mu leer fayu ñu ma dërëm te la laay waxee dërëm bëgg na ndaw TFM jox ma ko dama yor njaboot yor waajur yor soxna yor ay doom war leen dundal ñu tagg salaire bi ne ma duñ la fay dërëm ndax da nga def foot erreur faute ban faute laa def fii ku. allah akbar tey Sénégal aduna déglu leen lii veyu tabaski tabaski des trois jours ku xam tabaski ni mu mel ak njaboot ñu dàq la. fii ñu sa salaire xamoo foo jëm ku caa yaa gore toogul benn pourtant benn télé di ko jooytu mu dem ak digniteem ak diineem xam ne yàlla rek moo fi nekk Sénégal ki a jara jàppale barke Serigne Salim social ku koy def ci àdduna laa la wax de barke alxuraan karim jàppale jëmm ji parce que gore la ah, dégg nga li mu wax ña fa nekkoon dane bu Kouthia ñëwaatee dañuy dañuy bàyyi te pourtant Kouthia moo samp foofu ba mu yenu plateau ba di daw ci rond-point bi almadi boobu ana ñooñu ñooñu tey lañ fa ñëw bu doon Kouthia tey mu reyante ak ñooñu ña fa nekkoon tey lii du am tey déglu leen ku mu àggale. waxtaanal sa jabar koy waxal ku sa jabar jël say wax génn ko jébaane ko bu dee sax yaa wax kon dafa am yoo xam ne tey dafa dafa rafetul auditeurs yi nag ñoo ñoo ma yëngal moo tax moom message boobu man bañu ma dem TFM parce que dañ yaakaar ne maa gàcce ma tax man du ma lii gàcce ci man de. dañ na ma bul fi tegati sa tànk dàq ma dàq sama groupe ne leen bu leen fi tegati seen tànk je sais que nul n'est indispensable mais il y a yoo xam ne seen mémoire c'est gravé dans leur cœur ba léegi amul kenn ci ñoom ku yëkkati sa kàddu na ma Kouthia kañ ci dox tànk jàmm mais sama ngor ak sama dignité ak sama fulla moo tax Sénégal ndeysaan dégg nga ko amul kenn koo xam ne yëkkati téléphone am dox ci tànku jàmm moo tax Sénégal dafa bëri ay naafeq Sénégal dafa bëri ñoo xam ne ay corrompu lañ xaalis la ñuy jaamu xaalis la ñuy toppi nit xaalis gis ci nit barki Serigne Saliou Kouthia de man gor laa ko jàppe gor pire laa ko jàppe barki alxuraan karim ba may gis leneen gor laa ko jàppe barki alxuraan karim Kouthia ak sama fayda moo ma may ma rampe waat mënoon naa dem ci yeneen chaîne des mënoon naa dem ci beneen chaîne Walfadjri mënoon naa dem ci beneen seen Sen TV mais dama rampe ci seen bu ndaw pour yëkkati ko dooleel ko pour xamal leen ne ba may démarrer ñoom amuñu woon télé rajo rek la ñu te damaa bàyyi télé bu am doole di wal fajiri waaye nag jàngat la ci àddina nit doo ko liggéeyloo bu def 19 ans bay waaj a jël nga dàq ko ne ko doo ko fay benn que c'est mbokk yi fi laa tey euh, sama yaram dafa daw barki Serigne Saliou démb dama déglu li nga xam ne mooy vidéo bi damaa jooy mbokk yi di waxaat na rek Kouthia ñu jàppale ko. ñu ngi jàppale sénégalais yépp nag adduna bi waxuma Sénégal rek ñi fiy def social bari na Europe bitim réew fu nekk maa ngi ñaan ci barki alxuraan képp koo xam ne mun nga def sa loxo nga jàppale Kouthia mu am fu mu nekk ma mu ngi ci jàpp mais ñu gën ko jàppale xam naa ne gor gor la du wax gor la du wax te metti na jërë ngeen jëf fii laay tàggoo ba beneen yoon jërë ngeen jëf bu ci gaaw Mm. dale leen jàmm ci seen boutique bii di American Shop boutique bi ngeen doon xaar yegg si na ngi fii ci Parcelles Assainies unité 22 ci wetu marché police bi janoog seen karo kër xaadim boutique bi nag li ko tax a jóg mooy gunge sénégalais yi ci ay produits de qualité 100 pour cent américain boo duggee lépp li nga xamante ni da nga ko soxla sa biir kër da ko fi am muy ay matériel électroménager am nañ ay frigo yu mag marque say by side ay Samsung ay LG attention frigo yi dañu ko gaax garantie am nañ ay téléviseur de haute gamme dimension boo bëgg am na fi image yu leer man yii xeetu image man musuma koo gis muy 40 pouces 48 50 65 75 ba ci 85 suñu numéro téléphone mooy 77 921 59 92 American Shop suñu spécialité ba tax ñu ñëw fii ci Ndakaaru mooy gunge ñiy yëngu ci wàllu hôtellerie équipé leen ba mu baax muy chambre à coucher ay matelas orthopédique yu baax original jóge fële ci Amérique am nañ ay lampe à bas jour koy accompagner yow xoolal yi xeetu lal suñuy xeetu canapé suñuy xeetu meuble yow daw si gaaw ah yéen ñi dëkk Mbour am nañu showroom fii ci croisement Saly ñun American Shop dañuy gunge ñi nga xamante ni dañuy yëngu ci wàllu hôtellerie bàyyi wuñu appartement meublé yi yow sa appartement da nga ko defar ba mu baax waaye am na lu manqué li mu manqué ñun ñoo ko yor di ay xeetu meuble yu baax ay chambre à coucher benn détail duñu ko bàyyi ba ci serviette yi nga xamante ni sa gan yi bu ñuy ñëwee ah moom lañu ñuy utiliser suñuy xeetu matériel mu mujjee xew ci àddina bi jógee fële ci Amérique am nañ ay chaise lant muy suñu papa yi ba suñu maam yi suñu chaise roulante yi dafa baax lool ñi nga xamante ni li ñu am ay jafe tànk mën nañ ci toog am nañ ay béke yu dëgër yomb a doxee nañ ay piliyaan suñu piliyaan yi yow xoolal bu la neexee da koy lem def ko chaise bu la neexee ubbi ko ba mu baax def ko lal ñun American Shop dañu sóoraale suñu rakk yi suñu doom yi waaw six ans ba dix ans andil lañ leen ay dàll yu rafet couleur yu baax ci été bii ñu nekk ah darab yaa ngi fi coton 100 pour cent waxoon naa la ko sànq waaw waaye foog ma leeral ko am nañ ay mbàjj ay ensemble ah yi xeetu coton suñu parfum yi nag dafa léger ndax ci tàngaay la ñu nekk waaw parfum yi dafa lay jox xeet bu neex góor jigéen ah suñu frigo baar yi dafa baax ci tàngaay bi waaw boo koy utiliser du la tardeel benn yoon da ngay teg même pas 20 minutes mu jox la ndox bu sedd American soap waxoon naa la sànq la boo jëkk nga baale ma ni eh kuy dóor man kuy saaga. di daani sama waay la. jàmm ña jaara busut wala man sa